ngi kontaan euh, di la dalal fii ci UGFM di la wax nga nuyoog internet yi lay seetaan. waaw Fama maa ngi leen di nuyu et puis di nuyu um, internet yi ñu seetaan. donc euh, ñu gis ne que ngay rendre hommage ki nga xamante ni euh, moo di Lamine Faye donc ñu bëggoon nga revenir un peu ci événement boobu. waaw bon en fait euh, oui c'est vrai que là dañuy def benn concert en hommage waa Lamine Faye au groupe Lemso Jamono bon parce que déjà groupe Lemzo Diamono dafa nekk groupe bi nga xamante ni bon daf ñu yàgg marqué quoi de biñ ñu nekkee parce que dañ doon ñëw suñu cœur di répéter et ainsi de suite et puis je pense que sax lool bokk na sax ci li gëna contribuer ci suñu ñu nekk comme musicien wu tey quoi donc euh, mu nekk groupe bi nga xamante bon li nga ko gars di dégg yépp mi eggul 10 ans matul 10 ans quoi. Qui vient ñu c'est à moins de 10 ans ba pareil, bi arrêté depuis 1998 99 donc euh, presque 20 ans aujourd'hui donc mu école en xamante et puis nous aussi pas de nous demander pour reprendre le projet et tout donc euh, et puis tamit ñu aussi un groupe de nga xamante aussi marqué nañ aussi benn temps pour et puis am benn affaire extraordinaire pour apporter apporté ci musique sénégalaise donc c'est la raison pour laquelle ñu de di le manche, en fait donc euh, bu ma la déggee bu baax mooy euh, nit yi ñu ngi koy demandé et tout et que yow euh, kenn gënu le mieux placé pour pour def affaire boobu noonu comme nit yi dañoo retarder pour def ko yow puisque c'est ton père nga ne xaa ah, nga def ko. si effectivement waaye <laughs> mais si si je pense sax ne am na ñu ko doon xalaat bëgg a def quoi parce que c'est sûr que ne affaire bi ñam yéene pour def ko vraiment bëri nañ quoi mais man bon peut-être dafa nekk loo xamante ni bon su ma xaasee ba bëgg def benn affaire.

dina ci participer te dina woy benn morceau boo xamante ne du sax euh, morceau bu jigéen woy ku ci mel ni Yoro Ndiaye aussi nañ ko invité mu woy beneen morceau boo xamante ne du sax morceau Lemzo jamono aussi parce que Lemzo jamono aussi euh, si on parle de Lamine Faye aussi comme que c'était un comme que c'est un guitariste compositeur bi nga xamante ne dafa jaar groupe yu mag yu mel ay super jamono foofu sax la ko nit ñi donc euh, des bien bu ñuy def genre hommage yu ñuy def genre clin d'œil bu ndaw ci ci groupe yu mel super jamono pour gën a retracer waat son chemin euh, mais artistique quoi donc euh, ki nga xamné aussi modi abou Habib Faye gis nañ ne ko def na lu lu am solo ci li nga xam te musique sénégalaise donc euh, joué na ci ak ténor yu bëri fi à part Baba Maal si je ne me trompe pas et tout donc euh, tay jii ni. est-ce que donc koy associé ci hommage bi wala comment ça va se faire. bon en fait xam nga Habib déjà ak Lamine ñoo bokk néeg donc beaucoup de vrais pour Lamine rek defal nga pour Adam, nga pour Tava, defal nga pour pour tout le monde quoi pour tous les artistes généralement et puis Habib Faye aussi bon c'est un artiste qui a xamante marqué énormément daf marqué marqué énormément pour moi, c'est peut-être l'un des meilleurs musiciens sénégalais de tous les temps. Le moi la gën marque marqué ci l'homme. ci Habib Faye. Ce qui ma le a marqué ci moom nag xam naa ko waxee <laughs> ñi peut-être que mais bon c'est vrai qu'il avait du talent ak yooyu noonu man li ma gën marqué ci mom mooy bima ma xalé bu mosaan jógee voyage affaire yooyu lim na indil dom muy papis taawam même chose la na indil quoi loolu nekk na lu ma gën marqué ci mom et puis benn jour je me rappelle sama papa dafa mosoon voyager à l'époque xamante moon ak supériorité moom loolu xamoo à l'époque daal mais euh, ñep amone ay joué foofu man quoi

un spectacle, ça demande beaucoup d'argent. Même pour que soit un auréole, il y a énormément de boulot derrière. Il y a énormément de boulot derrière. Et pour le moment, bon, jusqu'à présent, je le fais sur fond propre. Euh, bon, ce qui n'est pas évident, mais bon, je pense que euh, euh, qu'ils font au début pour tout et que bon, ni certes, commencer dit commencer dit pour organiser d'autres choses à l'avenir, mais c'est sûr que ce n'est pas évident, c'est pas facile. Ok, comment est-ce que état du Sénégal accompagne vous bon <laughs> bon en fait euh, beaucoup teel a wax quoi bon peut-être je pense que beaucoup concert bi passé waaw wax fa dëgg neex euh, présidence bind nañ ministère de la culture boobu mom sax boobu amna réponse quoi ministère de la culture amna réponse bind nañ aussi yenen ministère affaire yooyu pour le moment nag ci sec Sénégal affaire dernière minute lañu gëna di faral di def quoi mais je pense que as qui euh, actuellement ni ci moment tol ni ci moment bi lañu soxla ñu ñu pose quoi pour affaire bi gëna jëm ci kanam parce que ci moment bi ci la lépp di taxaw sa kanam pour nga mën ko def quoi jour concert bi mën na am que affaire yu bari na fekk def nga ko ba quoi. Euh, lan ngay xaar au sortir euh, bu ci hommage bi ne. pardon hommage bi nii après hommage bi lan nga siy xaar. waaw xam nga Lemzo Diamono dafa nekk groupe bi nga xamante ne patrimoine la quoi xam nga pour man c'est un groupe bi nga xamante waratul arrêté bon mais bokk na ci samay projet ma ñu reprendre groupe bi avec des nouvelles têtes avec euh, xam nga ak une autre musique bi nga xamante ne c'est un peu plus moderne xam nga ba pare euh, avec d'autres têtes ba pare essayer daal euh, fexe en sorte que euh, ak lu moderne moderne moderne ma garder kiw groupe bi quoi esprit groupe bi parce que groupe bu nekk dem esprit boo xool super étoile dañu am esprit de musique super jamono am esprit de musique Ramdan am esprit de musique lem mais Lemzo jamono aussi noonu la amee esprit musical ba xam bu ñu joué même woykat bu woyagul di nga xam ne Lemzo jamono la quoi. lan mooy sa dernier bon c'est mon dernier mot déjà moi, je ngi de remercier cette invitation et puis de nous, internet Unis cette année, nous. den rendez-vous le vendredi 27 septembre euh, au théâtre national de Sorano merci. Eh bien, de rien. <laughs>